sëriñ Cheikh Seydou Muxtaar yàlla na fi yàgg te ànd ak wér nu yàgg ak moom ci ndigal lu bàyyi ci sëñ Mahod Mux sëñ Sidi Muxtaar jaar ci sëñ Fall moom sëñ Abdou Xaadir nee na ñu ngi ndokkeel mboolem jullit ñëpp di leen siyaare ci bis bii ak ci weer wi neen rawatina nag mbokki taalibe yi di ñaan ci sunu borom ci barkeb sëriñ bi ñu tàmbale ko ci jàmm te eggale ko ci jàmm te yàlla nangul ñu ko ci baaxu borom Tuubaa nee ñu ngi dénk mbooloo mépp ñu am ak farlu yokk sunu góor góorlu ci jàmmu yàlla xam ne weer wii weer wu bare ay ngëneel la weeru jaamu yàlla la weer wu farlu ci lu baax yépp la mu ne kon nag nañ góor góorgóorlu bu baax fonk jëmmi gi ci boppam fonk jàng alxuraan fonk jàng xasida fonk taxawu guddi yi ci naafi la nee ndax loolu mooy li nga xam ne bu nu ko ci defee mën nañoo faral suñu bàkkaar yi jiitu woon kon nag nañ góor góorgóorlu ñépp di ñaan ci suñu borom ci barkeb sëriñ bi lu tàmbali ko ci jàmm àggale ko ci jàmm yàlla na ko fekk na ngeen di déwén ci barkeb Serigne Touba jërëjëf ku waay tool na tàll amin amin amin amin amin amin amin jërëjëf na ñëpp yow